représente Sénégal parce que moom euh, mooy drapeau Sénégal tey nga gis euh, euh, coupe d'Afrique bi ñëw fii ànd ak nga ministre des sports indaale ko ñëw fekk fi directeur COUD Maguette Sène ñu wër pratiquement fi nga xamné mom moom la étudiants yi jàngi di jàngee lan nga mëna a addu ci lolu waaw man may Momar Ndiaye alliance Ndiaye drapeau Si c'est le porte-drapeau national toutes les disciplines sportives du Sénégal nek chevalier ordre national de mérite décoré par président de la République du Sénégal nek euh, représentant du Sénégal intérieur du pays matière de euh, pays dans les, portes et euh, le drapeau bi ma yor man nek coupe d'Afrique nak dama coupe d'Afrique muy 11 coupe d'Afrique football 11e bi len ko jël xama def na 14 coupe d'Afrique yaay ñaari handball la benen bi basket euh, ñaari basket la benen bi handball ak 14 football def 3 coupe du monde 4 jeux francophonie 4 jeux africains def jeu olympique muy espoir muy lo fo xamni boko defé boo ko deful rek defoo lenn muy jeu olympique am parce que euh, tey nag dafay loo xam ne dafa am solo parce que Sénégal dafa yàgg daw si coupe d'Afrique mosu ko am yàlla dénk leen ko muy année bi Sénégal indi fi coupe d'Afrique muy loo xam ni euh, ñëpp si bëgg Sénégal yëpp si bëgg sa yokkute la si réew sa ragal naa ne day continuer parce que ñi ngi jub coupe du monde sa dañuy ñaan yàlla téye ko tamit mu ñëwaat fii. tournée bi nag dafay lu am solo danoo ñëw kudd université dafay loo xam ni sénégalais yëpp mën na ni ku xale ku fi mën a jàng ku ne ak ñi fi nekk ay président ñi ku si nekk jaar nga fa ñoom magga jaar nañ fi mais xama Matar ba xëy na <laughs> jaaru fi jaar na fi ak ñeneen ak ñeneen euh, même Macky Sall président jaar na fi waaw muy Sénégal mooy loo xam ni dafay képp kuy xarañ wala ngay jàng ay diplôme am sa bac rek dugg nga université muy fo xamni moy mooy ëtt jàngalekaay boo xam ni moo gën a rëy euh, Sénégal tay nak ñu duggal fi trophée wi ngeen gi nga xol étudiant ñu ko accueillir. waaw étudiants yi sax accueillir nañ ko nañ ko accueillir vraiment mbégte la parce que coupe bi ñëpp ko bëgg laal mais ñëpp mëno pour ñun ñëpp jot si laal ko day jëfé parce que coupe la bo xamni ni la rek ñëppay photo motax affaire yi da ngay naxanteeg gaay rek do bisculer do def dara.

Nous ñëw andalé fi coupe d'Afrique bi nga xamné à la xalé yi fan en tant que euh, randonneur qu'est-ce que vous pouvez dire. en fait d'abord c'est Ndiaga président de la en fait tay dañu am parce que avant ma coupe c'est d'abord cette symbiose cette communion de toutes les personnes de toutes euh, de toutes euh, âge ñu mën a nek tey ku doon gis université nga gis xeer gis leneen gis saaga tey ay nit am jàmm am forêt eh, xaqataay nekk ay mbokk bon on se rend compte que le pays là c'est un pays benn la du ñaar du ñett c'est un seul pays qui s'appelle le Sénégal mu nekk suñu yëf ñu ñëpp donc c'est li ëpp maanaam mooy tey ñëpp on se on se rend compte que c'est un seul patrimoine c'est le kii Sénégal cela étant dit il y a eu donc c'est vrai cette euh, manière de fêter la fête euh, de fêter donc la Coupe d'Afrique tey le euh, le ministère des sports euh, jël na tey lii gën a jafe mooy dans le milieu étudiant. indi fii la Coupe mu nekk euh, tey monde bu donc melting pot pour xam ne c'est l'ensemble des couches sociales ñoo ñoo nekk ku nekk coupe bi nekkatul yëfu waa Dakar yëfu les paysans les pêcheurs les agriculteurs donc c'est un monde du le monde du général tey ñoo jël coupe bi de ces photo donc c'est c'est le monde du savoir mais aussi c'est le monde aussi des inconscients le monde des des donc responsables mais c'est un monde de euh, C'est une communion générale donc ça un monde bu ñëpp on bon tey ne cas de encadré de temps ne si dem mu neex pour ñëpp mu nekk un moment de retrouvailles et de fête. waaw salaamaaleykum Malo VIP ngeen Dakar ni en direct waaw. tey dañu avons un trophée continental oui. ci biir temple du savoir ñu kay wax université Cheikh Anta Diop nga gis euh, engouement bi nga xam ne am étudiants yi génn yow nga bokk fi yan kàddu nga ñu mën a wax ci loolu. jërëjëf maa ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ni moom ngeen ma dalal tey nag doon bés boo xamante ni bés bu rëy la ñu ànd ak ki nga xamante ne kii mooy le DG Maguette Sène le maire de Malicounda doon koo xamante ni fa tabaarakalla maa sha Allah mu ngi liggéey liggéey bu rëy si université bi yéen seen bopp lu ne nga gënd ko jeex tey monsieur le ministre maire de Fatick ministre de sports ñëw fi indi li nga xamante ne nii mooy trophée bi coupe d' afrique nga xamante nii depuis l' indépendance à nos jours soxla woon nañ ko doonoon su numébét ay jàmbaar jaar fi xare yàlla dogalu ko waaye yàlla nag dogal ko ci ñi nga xamante nii mooy Sadio Mané ak équipe am Aliou jiite ko mu doon mbégte mu rëy ñu indil ko étudiants yi ñu doonoon ñoo xamante ni nag ñu ràññeeku woon lañ ci li nga xamante ne mooy coupe d' afrique bi fan yi fii ñuy supporter guddi ak bëccëg suba ngoon nelawuñu ba yàlla dogal ñu jël ndam li moo tax tey directeur njukkale leen lii mu doon loo xamante ni bànneex la suñu xol sedd ci soo ba léegi ñu nekk ci waaye tamit ñu leen jaajëfal yéen tamit di ñaan yàlla bu baax yàlla gën leen a yokk yàlla gën leen a sàmm ndax yéen tamit ñu am solo ci réew mi ngeen parce que si vous avez message messages c'est grâce à vous techniciens yi ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm tamit ñi nga xamanté ni ñom ñom moom télé yi di leen bu baax merci beaucoup. c'est Madame Fall Magadgué assistante au budget et membre de l'AFECO euh, ñoo organisé en fait euh, euh randonnée bi ñu nak wa ACC ak euh, AGC trois amicales ici coïncidence heureuse ngeen def. randonnée ah vraiment accueil fii trophée continental bi. ñu gis engouement bi nga xamné mom le ko étudiants yi recevoir. ah oui yow nga bokk fi mhm. ah oui oui oui suñu xol ñun ñep dafa sedd parce que ñu ñu doon wax ni ci ngoon lay ñëw fi ni au niveau du campus mais finalement yalla def ni mën nañu ànd ak ñun def le tour marche ak ñun randonnée vraiment honneur le si ñun kontaan nañ trop étudiants itam apprécier nañ gis ngeen site yi ñu jaar yépp def nañ site extérieur yépp ba dellu siwaat si campus bi vraiment

premier dimanche nous ne ñu nous faire des def permettre de nous nous ko xamante Je l'ai dit hier ou avant-hier, le 11 mondial a été sorti et il n'y a que le Sénégal qui compte trois joueurs dans ce 11 mondial. Cela veut dire qu'on a une équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout de n'importe quelle compétition. Mais pourquoi j'ai demandé à l'UNCC, la fédération, Sadio Mané et les autres joueurs que le Sénégal ne se fixe aucune limite dans cette compétition mondiale. Il faut qu'on croie en nos capacités, qu'on se batte parce que personne n'est meilleur que le Sénégal. Je vais terminer par donner ce symbole parce que ce trophée, ce n'est pas dans la désunion qu'on a gagné ce trophée. On a gagné ce trophée parce que malgré nos ambitions, malgré nos différences, on a eu l'intelligence d'aller ensemble, s'y ensemble, pour qu'on gagne cette Coupe d'Afrique des Nations. Si on veut que votre avenir, l'avenir du Sénégal soit radieux, il faut que dans la compétition, on ait l'intelligence de rester ensemble. On soit soudés, chacun défendra ses positions, mais l'intérêt commun, c'est quoi C'est le développement de ce pays. Donc, ça, c'est un symbole, c'est pourquoi on est revenu. C'est pourquoi je voudrais tirer un chapeau. Je n'en ai pas parce que j'ai une casquette. Mais je te tire ma casquette, le directeur général du compte, pour ton engagement. Vous êtes entré avec les étudiants parce que vous seuls, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes appuyé avec les, par les étudiants et vous êtes en train de relever les défis. C'est symbolique pour vous étudiants. Ça veut dire que ça a été gagné par un travail acharné. Ça veut dire tout simplement Ça veut dire tout simplement que la récompense est au bout de l'effort. Voilà la récompense des Lions du Sénégal. Ça signifie quoi pour vous Vos parents vous ont amené ici vous retournez dans vos villes, dans vos villages avec un trophée. Et ce trophée-là, c'est quoi Ce sont vos diplômes. Battez-vous, battez-vous pour ramener à vos parents un trophée comme cette coupe-là. J'ai espoir en vous parce que vous êtes engagés. Un mots pour terminer, pour tout dire tout simplement. Merci à M. le ministre des Sports. Chers étudiants, le DG l'a rappelé, nous étions les premiers supporters de la nation sénégalaise. Nous avons vécu l'ambiance ici dans ce temple du savoir. Donc ce trophée mérite de venir ici au nom de tous les étudiants pour qu'on puisse savourer la victoire continentale. Nous remercions encore tous les étudiants sans exception de par leur mobilisation, de par leur dynamisme et de par leur intégration au sein de cette université Cheikh Anta Diop et la de nous avoir euh, euh, de nous avoir au moins permis de voir ce trophée continental. Donc, chers étudiants, nous vous remercions. Nous sommes tout à fait d'accord des mots du DG parce que ce trophée aussi doit symboliser nos diplômes, doit symboliser notre réussite au sein tal por salvar na Messi.